mbokk yeeg euh, xarit yi internet yi ñuy suivre à travers solution TV solution info nuyu nañu leen ziar leen ñaanal leen jàmm. ñaanal ko nag euh, sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulahat mbakke yàlla suñ mboom yàggal ko fi loolu mu ànd weer defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalifa yi ci biir réew mi yëpp nag ñu jàll ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm nuyu nañu nag waa diaspora bi bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne rek saay su nekk rek ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax ci li ñuy liggéey tey altine des émissions ñu waat beneen yoon ànd ak ki nga xamante ne nii rek. nag moo di Alaaji Sanjoogu Meng comme niñ koy baaxoo di defee chaque altine ñu bàyyi ko ma nuyoo yokk internet yi ñu suivre après nag ñu xuus si suñu waxtaan incha allah léegi léegi lay doon Alaaji maa ngi lay nuyu di la ziar. ma jigéen ñi ngi lay fay euh, di la ziar di la ñaanal jaam di am mbégte ak kontaante ci yow. dem ba Touba nuyu xaj général des mourides sëñ di ko ñaan mu yàgg fi tànn ak waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi d sëriñ Abdoulahat Mbacké mhm. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarim laax la nuyu sénégalais yi nga xam ni ñi ngi ñuy teewlu nekk ci biir réew ak bitim réew di leen wax na leen door nañ macha allah l'émission des émissions di am mbégte aussi di am kontante suqaraan macha allah ay <laughs> ayca mi ngi noonu jërëjëf euh, alaaji di nuyu nag Baye Assane Mesere euh, mi ñuy euh, chaque jour rek mooy taxaw ngir rek ñu def émission bi comme ni mu waree. segal <laughs> que moom dafa jàpp ni daf ñuy torturer quoi xam nga. moom daal bu heure bi jotee rek mu ne ay si jóg leen jot na et maanaam ak ni koy waxee. waaw dafa dafa mel daf ñuy ci daf ñuy. daf ñuy daf ñuy dafa jàpp ne daf ñuy bousculer pour ñu def émission bi maanaam dafa mel ni émission bi nattu la ci ñun <laughs> noonu la ko jàppee quoi Assane <laughs> ñu ngi koy ziar bu baax a baax sooy bokk Modou Diouf Abdoulaye Diallo ak Abdou Top ak képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel jamono ji duñu suivre di commenter woy leen nag di abonné ak commenter say su nekk ah, tey nag euh, li ñuy waxtaanee rek bokk na ci kàddu yi nga xamante ne ni moom Boubacar Camara yëkkati na ko jëmale ko nag ci report rapport bi nga xamante ne ni euh, moom lay sàkku ngir rek ñu def ko ci élection yi ñu jëm parce que situation dëkk bi actuellement moom moo ñu permettre ñu organiser fi ay élection ay xalaatam la moom la yëkkati ci kanam tuuti daañ ci ñëw ànd ceeg yéen leneen lu soxal nag arrestation ki nga xamante ne ni moo di Amadou Ba bu Pastef ginnaaw aljuma bi mu demee ci émission ñu euh, waxtaan ba mu fa sekkoo nag ñam nenn Aïcha mi nga xam ne moo doon présenté bi mu arrêté jamono jooju nag xamuñu woon raison yi tax ñu def arrestation bi ba waral ki nga xam ne moo di Néné Aïcha ak Serigne Saliou euh, ad adwaan nañ joxe ay explication ci arrestation boobule ñu jeexalee ko nag Abdoulaye Seydou Sow moom mi nga xam ne nag dafa daal di dikk euh, daal di joxoñ ki nga xamante ni ni moo di Ousmane Sonko ne doole bi mu doon jaay ak fipp bi mu doon fipp tey moo ko yóbbee musiba bi mu nekkee moom la xam xamle moom Abdoulaye Seydou Sow dañ Mbengue mu indi ci xalaatam ñu doree ko ak Boubacar Camara miy sàkku rek ngir rekk ñu daal di reporter élection yi ba yeneen jëmmi jamono ñu dem xooli ko daal di dellusi. waaw maa ngi leen di nuyu bi may def live alxamis bi passé laa ne ci réew mi toll. Mhm. yenootul maanaa tànk xam lu waxtaanee toxal élection bi ci yëgoo wax ko moo fi ne. ak bañ koo wax noppiwaale ko waaye ñëpp xam nañ ne Sénégal dalul dal bu tax ñu mën a jëm ci joŋante yu set ki ma ko teg nag benn bi mooy boo jëlee rek acte yi nga xam ne tegu na ci ndortu Ousmane Sonko te benn sotteegu ñii tëdd ci kaso bi Sénégal ak ni ñu toll mer yi nga xam ne nit ñi guux nañ ko te giifagul ku ne lakk sa jalu xeer tey tëkku hmm. condition yooyu boo ci buggee organiser élection si ñetti weer yi ci musiba nga jëm ñàkk wóolu wante bi nga xam ne ñaay mooy ñaareel bi ñàkk wóolu wante bi laxasu ci jongante ci processus électoral bi ci affaire u parrainage yi ci processus ku lépp kenn wóoluwul sa morom teg ci nag jafe-jafe yi nga xam ne yu tar yi yokk yi Sénégal ndóol bi ci nekk ñàkk karange beeg mbëkk ni kenn wóoluwul sa morom école bi ndërmeelu gis nga li fi xewoon conséquence su événement yi yëpp université de tout kenn du tabax réew ci fitna. Mhm. kenn du jëm ci jongante tànk xadar yi jiiful wóolu wante amul ñu tëjaat arti leeral lépp lu ci aj mhm. ñun loolu lañu ñu gis ni moom mooy situation Sénégal. d'accord porte nag mën na jur loo xam ne lii dinañ ko rëcc ñun ñëpp. ci ñu jëjëfal ko moom Modou Diouf alaaji dégg nga Boubacar euh, Camara li nga xamante ne ni mooy ay raison yu mu évoqué yu waral ñu mën a reporter yi les élections est-ce jàpp nga ni yow euh, Sénégal ñàkk na dal dal boo xamante ne ni report élection war na fi mën a am. waaw Boubacar kamara ñu ngi koy nuyu de passage. Hmm. mu nekk nit koo xamante ni euh, nit ku dal la. Hmm. aussi tamit mu nekk nit koo xamante ni bokk na ci ñi nga xam ni man uh, naw naa leen ci réew mi mm-hmm. ci seeni xalaat ak seeni doxalin mu nekk koo xamante ni bii tamit wane na depuis quelque temps que ni uh, Sénégal moom uh, ñor na ko mm-hmm. li wax nag bon am na nu ko lay taayale maanaam jamono ji nga xamante ni moom lañ toll nii ku jàpp ni réew mi am na dal moom am na jàmm pour man xamoo li xew parce que man jàpp naa ni réew mi mu ngi ci tension boo xamante ni bii moom bu doy waar la réew mi nekk ci jamono jiñ toll nii ndax loolu nag raison la pour ñu pousse élection yi walla du raison loolu. leneen la maanaam nit la ku joxe xalaatam ci pénc mi joxe ay gis-gisam mais man dama jàpp ni man sama gis-gis que ni élection yi même bu ñu ko poussé tension bi du fi jóge parce que dañoo awut yoonu ngir régler problème bi te it pareen saay politiciens professionnels yi man duma leen wóolu maanaam moom bu fekkee ne mi ngi wóolu politicien professionnel yi man duma leen wóolu mën nañ jubook yow ci waxtaanee mbir mi comme li Boubacar Camara wax ni nga xam ni man jàpp naa ni bon fois la ko waxee da ko wax rek ngir jàmmi réew mi mais kat ngay wóolu ndax ki ngay toogal di waxtaan lim lay wax dina la doy foofu la réew mi toll réew mi dafa toll foo xam ni fii tey ma jigéen maanaam wóolu nit yombatul parce que dafa am ay jalgati yu bari yoo xamante ne bii gis nañ ko ay nit ñu jege woon nit ndax fi mu nii ñi nekk ak Ousmane Sonko mën nañoo wóolooti kenn ci classe politique professionnelle mm-hmm. ak ni ñu doxalee kon donc waxtaan woowu pour mu ne du yomb parce que pour mu ne faw ñu joxante confiance te loolu li war a tax linkale leen pour ñu joxante confiance maanaam dañu amatul sax ñu ko médiation bi ñu ko war a mën a dox parce que tey bu njëkk ba sëriñ si la woon te tey jii fi mu toll nii sëriñ si ku ci ne am na fu ñu la dëkkale maanaam situation dëkk bi tey pour ñu toog waxtaanee ay mbir yombul. yombul pour man lan mooy solution mooy ñu dem ci élection yi damaa gis ni élection yi dañ ci war a dem li ñu war a négocier mooy lenn. mooy na nit ñëpp dem parce que pour ñu am élection yu leer fii ci dëkk bi faaw ki nga xamante ni ki mooy Ousmane Sonko dana ci bokk parce que loolu na gis nga usmaan Sonko fenn rek nga ko mën a gañe nit ñi nangu ni gañe nga ko fa bu fekkente ni bi gañe nga ko fa mooy nga bàyyi ko mu dem ci ay élection mais boo ko bàyyiwut mu dem ci ay élection ba noppi nga jàpp ni kay ñëw ëllëg mën na doxal ma loolu mën na indi ay jafe-jafe jàpp naa ni foofu lay ragal sax Sénégal tàbbi fa parce que Boubacar Camara kenn la ci rares politiciens yi nga xam ne nangul nañ seen wujj li ko sunu borom may moom nangul na Ousmane Sonko li ko yàlla may boo gisee sax problème bi mu teg yëpp mooy problème Ousmane Sonko la teg wax ni élection mënta nekk donc loolu li mu la wax mooy daf la bëgg wan ne la élection mënta nekk san Ousmane Sonko donc loolu mooy li wax ji bu li muy wax ne nañ ko puus toog waxtaanee ko procès Ousmane sonk yi loolu dafa lay wan ne la il faut que ñu fexe ba ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bokk ci élection yi. loolu mooy li ñoom loolu la ñu gëm parce que koo si dégg muy wax rek daf ne nañu ko delloo euh, radiation bi nga xamante ne ni def nañ ko nañ ko delloo si liste yi ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye dégg nañ mu wax ko est-ce que ñoom ñëpp réellement li ñuy wax loolu lañu ñu moom moo nekk lu nga xam ne gëm nañ ko. waaw mais xam nga gëm ko ak bañ koo gëm xam nga parrainage Cheikh day wax ma. Cheikh def ne nit ki wax moom bul seet mooy kan ak fu mu bokk mais seetal li mu wax rek lan la tey jii delloo usmaan Sonko mu mën a nekk kàndidaa képp ku bëgg réew mi te réew mi yitteel la te muy dëgg ci yow war nga xam ne lii mooy li nga xamante ni bi wax dëgg fa yàlla bokk na ci senegal li nga xam ne muy tàmbali am jàmm mm-hmm. loolu war nga ko def léegi nag bu ñu demee ci ay élection nga dem ak moom ci ay élection nga gañe ko mm. nit ñi xam ne dem kenn élection gañe na ko bu boobaa moom mu mën a yëkkati téléphone am félicité la mm. su fekkente ni moom moo gañe nga mën a yëkkati sa téléphone félicité ko mm. xam nga bu ko defee Sénégal <coughs> amoon na fi ay guddi yu bari yoo xam ne jàppoon nañ ni bët du set pourtant bët set na ba nit ñi tàcc mais loolu ay nit ñu mag ñoom ñoo ko def ak lu ñu leen mën a waxal fexe nañ ba joxe lenge yi ci ak dal Abdou Diouf def na ko jox ko Ablaye Wade Ablaye Wade def na ko jox ko ki nga xamante ni kii moom lay wax président Macky président Macky nag amoon bi gën <coughs> boo xam ni moom du bokk sax far ci ay élection warta jéem a galgal kenn mooy ki nga xamante ni ki tey moo waroon a am mujj bi gën a rafet parce que xam nga lu tax mm-hmm. Sénégal jox na la ko ñaari yoon bii yoon mënoo bokk ñu ne la ah yow mi nga xamante ne bii de mënoo bokk waaye yow yaay ki nga xam ne yaay organiser élection yi nga organiser élection yu leer yoo xamante ni bii tey amut lan lu ci lëndam nga pare joxe li nga xamante ne bii mooy lenge yi Sénégal danañ la tàccu xamal la ne la li nga def de lii rekk la yow yaa fi def lu kenn mës ta def parce que gañe nga ñaari yoon. te Sénégal yow folliwuñu la waaye dafa dem ba mënatoo laaj loolu lu ko gën a neex ku kenn gañewul gañe ñaari yoon te kenn gañewu la mm-hmm. ndam loolu doyut donc jàpp naa ni président Macky Sall foofu la waroon a xëcc mais gis nga yi bés bu ko poussé tension day gën a continuer di fi maanaam am na ñu ñoo xam jàpp nañu espoir bi yëpp coow li coow li ay weer a leen dese pour ñu génn ci yi maa ngi fàttaliku euh, élection 2012 bi nga xamante ni bi affaire bi dafa tàngoon ba gars yi naan élection yi est-ce que duñ may Ablaye Wade trois ans pour mu yeggale chantier bi Sidy Lamine njëkk taxaw fi bañ Obasanjo ñëw fi muy ex président Nigéria ñaan loolu la ñuy négocier Sidy Lamine ne loolu mënta ne kii putschiste la mënta ñëw di ñu jàngal démocratie Sénégal dëkk la boo xamante ni bii jaar na ci ay alternance xam nañ ay élection yàgg nañ koo def mu nekk kàddu yoo xamante ne kàddu yu am solo la te ba ñu defee la ñu war a def président Macky Sall Abdoulaye Wade woo na ko félicité ko ba noppi jox ko li nga xamante ne bi mooy lengee la mu waxoon mu def ko duma def lu gën a yées li Abdou Diouf def mm. donc loolu mooy li nga xamante ne bi foofu la ñuy woo président Macky Sall ngir mu wuyu si fa sénégalais yi macha allah am na solo alaaji euh, leneen nag muy euh, waa ji di Amadou Ba bokk Pastef euh, vendredi Ndoumbelane dalal ko ak nen Aïcha ñu seetlu ne nag ba mbir yeey waaj a jeex da police daal di ko fay fekk daal di koy jël yóbbu sans pour autant ñu expliquer leen raison yi tax ñu jàpp ko ñu dem xool yi Néné Aïcha ak Serigne Saliou li ñuy wax ci boobule arrestation tellu si waat alors juste après cela euh, bi ñu génnee di tàggatoo euh, on a vu quand même que euh, devant les locaux de Sen TV une voiture blanche benn L200 taxaw on nous signale que section de recherche de la gendarmerie de Colobane la donc dañoo ñëwoon interpeller kii di Amadou Ba Amadou Ba nekkoon suñu invité ci Ndoumbélane vous l'avez remarqué donc ñu ñëw arrêté ko donc on l'a interpellé juste devant il a demandé à joindre ses avocats jéem na leen jot à joindre également sa famille mais après euh, dañ ko jël euh, yóbbu ko donc loolu tax ñu reprendre justement l'antenne pour essayer de comprendre Serigne Saliou euh, ce qui s'est passé essayer aussi de dénoncer li jot a xew parce que toog ci plateau quand même tenir ay kàddu on ne sait pas encore lan moo tax ñu ñu ñu ñu jël ko mais dañoo njort rek ne que peut-être am na yenn kàddu yu mu yu mu jot a def ci émission bi xëy na looloo tax mais xamuñu exactement ce parce que laaj nañ agent yi mais ñoom nee ñu ñëw euh, jël si ko. Mhm. c'est vrai donc ñoom ils sont dans leur rôle. ils ont une hiérarchie. donc euh, ils sont en ñun pour l'instant mënuñu wax la raison pour laquelle Amadou Ba quand a été interpellé devant les locaux de la SenTV. Mhm. parce que amaguñ ci fi ne ñoom aussi bi ñu ñëw waxuñu ñu ne lii moo tax ñu jël ko. Mhm. mais que surtout je ne pense pas que ça soit vraiment. Euh, que ça soit au niveau de l'émission ça peut être peut-être autre chose boo xamante ne nii leneen la woon ñu xam ne actuellement mi ngi seen TV ñu ñëw jël si ko fi mais je voilà mi ngi noonu merci moo du Modou Diouf euh, Alaaji déglu nga euh, li nga xamante ne ni euh, ñaari journaliste yooyu wax nañ ko ci arrestation ki nga xamante ne ni moo di Amadou baax waaye nag bi ñu koy arrêté ñoom xamuñu woon motif bi lan la mais tey bi ñu xëyee gis nañ ni selon avocat bi di Ciré Clédor Ly ñoom nee nañ diffusion wu rapport médical bi nga xamante ne ni doon nañ ko wax ba procureur ne woon def si def enquête moom la diffusé moo tax. ñu jàpp Amadou Ba. moom la diffusé Amadou Ba moo ko diffusé. loolu tey loolu lañu xëy ne moom mooy euh, le fait ñu déféré ko. ah moom moo ko diffusé. ay loolu de lañu wax. loolu lañu wax waaw. loolu la avocat bi wax. <laughs> Ah, waaw ah, doy na moom moo ko diffusé. Ah, fu mu jaar ba yegg si ci moom ci loxo. Amadou Ba loolu problème bi nag. Raba est-ce que du bi ñu waxee ne. kan moo bind nañ ko ba noppi est que du dafa toog ci plateau bi peut kan moo bind kan euh, bind. n'est-ce dañ ne kii. administration bi pénitentiaire ñoom ñoo bind ah. waaw yónnee ko ñoom ñoo bind jox ko. ministère ministère. Mm. diggante bi foofu ci Amadou Ba nekk moom. Pastef. waaw fan la Amadou Ba nekk laa kañ boo ci kii bi rapport bi. ah, ah doy na waar comme que loolu lañ wax ñoom dinañ déggaat encore. Mm-hmm. kii bi comme que yëkkati nañ. ne lii la bon parfois li may euh, bañ rek. Mm-hmm. mooy pareen saay di nga gis ñu téye nit euh, mais la plupart pareen saay enquête bi man damay naan pareen saay ñiy enquête mm. est ce nekkuñu sax dañuy toog rek après di vérifier groupe WhatsApp bi euh, xool seen réaction. Mm-hmm. beneen saa yi nga dégg ñu jàpp nit ñu ne xamaguñ luñ ko jàppee mais ci saa si ñoom groupe WhatsApp yi ñoom ñu ngi vocal naan est-ce que du lii kii naan est-ce que lee kii naan est-ce que lii ku ne di partagé te li ngay partagé noonu euh, mën ngaa dem sax ba dugal nit ki nga xamante ni kii yow euh, tee nañ ko te waxaguñ la bu buñ la waxagul moom. ñii li nga xam ne moom lañ wax nii xam nga ñoom dañ wax ne ñoom jàppuñu ni amul benn yoon ci émission bi li nga xam ne moom moo war a tax ñu téye ko ñoom loolu mooy li nga xamante ni bii moom moom la ñu wax maanaam yow yemal rek ci li nga xam mais bul naan est-ce que est-ce que est-ce que parce que est-ce yooyu da ngay gis ay dem di télécharger ay vidéo est-ce que du li mu waxoon fii est-ce que du li mu waxoon fële la plupart ñooñu mën nañuy gën a dugal nit ñi. mais même su fekkee diffusion wu rapport bi la euh, affaire yi xëyul xëy rek tàbbi ci ay loxoom. waaw loolu moom mooy li nga xamante ni moom tax ma wax la ci njalbeen gi. Mm. ne la fu mu jaar ba yegg si ci moom. fan la jaar bu fekkente ni bii division rapport bi la euh, fan la jaar parce que bu fekkee ni kii mooy bind di ko jox kële am na fu yëf yi di jaar te diggante bi man gisuma ci fu ci Amadou Ba war a wëndeeloo Ba nag depuis dafa nekk koo xam ni mi ngi au sommet ci li nga xamante ni bii mooy mbir yi gis nañ ni booy patriote yi genn wàll gi léegi ñëpp daanaka dañ koy diglu di ko suivre bu baax a baax mu leen di leeralal mbir yu bari est lien boobu nga xamante ni moom la ñu bëgg a dagg pour léegi communication bi nga xamante ni bi moom la kii woon parce que parensaay mën nañu xool ne boo kii est-ce que nekkul ni moom moo yore communication parti bi ci jamono juñ toll nii parce que ni ko xale yi di dégloo moom wax dëgg fa yàlla c'est extraordinaire. réew am démocratie. waaw est-ce jaadu na nga ni diw dafay communiquer. waaw ah, xam nga xam nga fi mu toll nii dem jàppi ji ko seen TV bii. Euh, fekk bàyyi ko mu def émission ba pare ñu jàpp ko loolu it communication la pour ñu wax ñu ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci télé yeeg yooyu seen débat yi moytu leen wax yi de <laughs> attention gis ngeen de ah, nii loolu mooy li nga xamante ni mooy li am parce que loolu jaru ko woon parce que Amadou Ba boo ko convoqué mu ñëw. Mm-hmm. Amadou Ba nit la koo xamante ni bii ku respecté wàllu yoon la. donc soxla wut dem di ko. jëli ji nii quoi yooyu mooy yi nga xamante ni bii tey. maanaam ki koy def man jàpp naa ni yemut ci Amadou Ba rek mais aussi tamit les autres euh, li wa li dani doon way dani doon wax ci xiiram bi papa ne pa bi mu nekkee fii papa ji euh, daal di dem bitim réew def juróomi at yónneewut deful dara paa bi daal di koy bindalu lettre dessin ci ak xiir ne ko hmm, hmm, hmm, xam nga léegi waa ji yónnee ci saa si la waa ji yónnee mm-hmm. loolu rek la bind ci lettre bi daal di koy desin xiir gi léegi est tamit lii mooy mm-hmm. Amadou Ba lim ñu li nga xam ne moom lañ ko téye mais dafa mel ni dañ ko jagleel pàcc parce que am na ñeneen ñu fare feneen bu ñu toogee ci. télé yi du leen xam nga loolu moom di ko di ko souligné waat soxlawu ko xam nga tey. am na yoo xamante ni soxlawut di souligné nit ñi moom li xaw ci penc bi nit ñi gis nañ ko. soxlawul sax di suñu ñëwaat parce que loolu moom hmm. am na loo xamante ni bi moom nëbbatu amatu ci làqatu amatu ci dara amatu ci hmm. les autres am nañ sañ-sañu toog ci plateau waxee nu leen neex maanaam am na mu yoo xam ni sax mën nañ ko wax mais dara du leen ci fekk hmm. tey jii mënoon nañu def plateau saagal la doo ci mën dara donc yooyu moom gis nañ ko fi Amadou Ba ma wax dëgg fa yàlla lu ko nit mën a waxal xam ni ay waxam ànd naak yar ak teggin waaw teyit ànd naak xam-xam xam léegi pareen am na kii yoo xam ne boo amee xam-xamit yooyu dëli la mhm. yenn xam-xam yi mhm. waaw parce que waroo am yenn xam-xam yi ak gëstu yeeg yenn leeral yi yooyu c'est dangereux waaw xam-xam ah bi ñu demee ba loolu nekk lu dangereux nag alaaji nag réew mi war na nañu xoolaat bu baax a baax en tout cas c'est très compliqué espérons que nag euh, dinañ ko bàyyiwaat mu delluwaat ci njabootam ak képp koo xam ne rek détenu politique ngeen nga nekk ci kaso yi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax te leen di bàyyi xel leneen nag di yi Seydou saw am na ay kàddu yoo xamante ne ni jëmale na ko ci discours yi nga xamante ne ni président Ousmane Sonko doon na ko amal avant ñu koy jàpp ci kaso bi ñu dem jéglu ko ay waaye kenn mënu la ma fi dara léegi leer na kenn mënu la fi dara ñi ko doon wax anañu mënu ma dara état bi toog rek di seetaan donc vous avez dit que l' état restera debout et l' état continuera à rester waaye kenn mënu lu ma dara fii ñaar fa téeméeri ma gisal amuñ fi ana mu tey voilà ñi ci doon topp di fi def ay taalibe di bëgg di saaga ay kilifa di saaga ay say nit mais nañ nañu ko continuer nañu ko continuer ñu gis ce pays là on le défendra parce que fii ci Kaffrine kenn mun kenn je parle na ngi ni fii lañ dox ci mbirum ASC mu nekk ASC entente wër terrain ñuy rëpp ayca mi ngi noonu en tout cas ñu ngi ci ligne boobu te wàccuñu ko de vraiment alaaji ban lecture ngay def euh, si euh, kàddu yi nga xam ne nii ni Abdoulaye Seydou Sow wax na ko jëmale ko ci Ousmane Sonko mu ne nee na da doon wax kenn mënul si moom dara et puis euh, téeméeri Macky Sall mënuñu ci moom dara explication yooyu noonu ban lecture nga si. waaw li mu wax moom xam nga dafa jàpp ni jeex na te tàmbalee gut moom jeexal na moom mbir mi moo lay wan nit ku ne rek fi sa xam-xam toll fa ngay waxee boo nekkee yow ci mbir nga jàpp ni jeex na te nit ki moom tàmbalee gut kon yow yaa ngi ci njuumte maanaam moom fi toll nii moo lay wan ne la moom. li xamoon yépp ñoom def nañ ko jeex na maanaam jeex na moom dafa wax publiquement ne mbir yi jeex na te mbir yi tàmbaleekut fi mu toll nii ñoom lan lañ def demuñu di def recours waaw ah, kon jeex na. Ah, mais recours yi xam nañ moom dafa tënk mbir yi nee na ana ki doon wax jeex na Ousmane Sonko waxut kenn daneen lu dut yàlla mënut ci man dara lu am. yàlla la mm-hmm. mu neex masant sant mu naqari ma waaye du kenn mbindeef bu mën ci man dara loolu nag tolluwaay la mm-hmm. nit boo munta yegg fenn fi mënoo xam loolu léeg-léeg ma jigéen nit teg la loo xam da jàpp ni moo la ko teg fekk sunu borom la ko teg mm-hmm. mais du nit ki nit ki nag faw moom mu nekk ci diggante bi mel ni moom la mais sunu borom a nangu nga jaar ci jaar jaar yooyu xam nga tey bu ñu lay nettali histoire sëñ Tuubaa ba muy dem ca géej ga ñaan gu nangu la waaye tubaab bi moom mi ngi jàpp ni mi ngi koy teg ab nattoom fekk ne dañ koy liggéeyal lii tamit est-ce que nekkul nit ñi dañuy liggéeyal dañuy liggéeyal Sonko te yëguñu ko oh, xam nga liggéey li ngay li ngay jàppee liggéey sunu borom bu lay tàggatal ay nit dala koy defal façon boo xam ne façon bu extraordinaire la maanaam yow sax doo yëg ni nit kaa ngi lay liggéeyal nit ki du yëg ni mi lay liggéeyal moo tax bu fayu gi ñëwee dalay bett lool parce que xam nga lu tax mm-hmm. daf lay jaarale ci ay mbir yoo xam ne parce que tey ku ñëwoon Ousmane Sonko jamono juñ toll nii tembe di nga yegg fii nga yegg mm-hmm. du ko gëm mais ñoom gëmoon nañ ko gëmoon parce que seen objectif moom la wax tout à nekk ni jeex na li ñu bëggoon mooy jàpp ko dugal ko ci kaso bi te ba léegi nii fu ñu nekk ba tey dama ne la ku mm. waxoon Ousmane Sonko waxuma la ñii de waaw man ni Ousmane Sonko mënu woon na bañ kii kii déggoo man kii dama la de l'autre dama la wax ne la li mu xam rek la gis xam nga kii mooy kan mooy koo xam ni maanaam li mu gis ah. xamut lii lan la maanaam li mu jàppee naqar ak mitit mm. mën na doon bànneex bu rëy a rëy parce que depuis que ñu téye ko ba nëgëni tey lañ gën a sonn ñoom ci terrain bi depuis ñu téye Ousmane ko ba nëgëni kon kañ mbir mi hmm. nit ki nga téye ko këram ak nga bàyyi ko muy wëndeelu lépp a yem ci yow fi mu toll ñoom fi mu toll lépp a yem ci ñoom ñoom amuñu amagul dara loo xamante ni gagné nañ ko ñoom Ablaye Sow mi amul dara loo xamante ni pour le moment gagné nañ ko hmm. léegi nag moom dafa war a xool fan la yëf di mujj. man jàpp naa ne moom bu fekkonte ni bii nit la koo xam ne mu ngi def dafa war a tiit ci jamono ji nekk ni bañ a fes ci jamono ji parce que am na ñu bari ñoo xamante ni bii tey mm. du ñu ci jamono ji fi yëf yi toll parce que peut-être am nañ vision bu gën a sori bi mu amee parce que lii nga xamante ni bii tey moom la jàppee mettit te ginnaaw jafe-jafe yombal la ciy topp yombal googu kañ lay ñëw jafe-jafe gi mënta weesu lii ñu ne yombal gi kañ lay ñëw te bu ñëwee nan lay ñëwee ak ci banaanam lay ñëwee donc ñoom sës nañ ci jafe-jafe bañ demee ba tëj nit ki kaso boobu lañ sës maanaam yegg nañ ci seeni limite yaa ngi dégg léegi ki nga tëj mi ngi koy dund dignement comprendre nga mm-hmm. te ginnaaw jafe-jafe nag ku ne xam na ni yombala ciy topp boo doon xamoon dara ci kii sax ma ñëwal la ci ci kii bi. <laughs> mais comme que yow moom mbirum diine xamoo ci lu bari. ah, ah, ah déet <laughs> ñëwal ñëwal gars yaa ngi lay seetaan non non non alaaji ñëwee ko si diine ci rek su ko defee ñu lay seetaan mën a comprendre man kese man maa lay déglu noonu. <laughs> mais en tout cas. rek ñëwal. temps daal li am solo. ah mooy ah, yaa ngi euh, doon resté mooy mooy na xam loolu quoi. nga ah. xam ni daal mm-hmm. ginnaaw jafe-jafe yombal moo ci topp te gis nga mbir mu jeexagul moom mi ngi doon wax sànq ci wàllu football nawetaan moom xam na lu bari ci wàllu football ah. temps bi bu jeexagul ah. bul ne gañe waaye moom dafa mel ni li mu xamoon ci football sax da koo réer mm. parce que dafa mel ni match boo xamee ne ñu ngi koy football mm. ba ñu dem mm. temps bi des quarante cinq minutes. te maanaam kaa temps bi des quinze minutes. nga mëne deux bi à zéro. ni ma la ko nga mëne deux heures. sax laa la bëgg a wax. nga ne gagné naa match bi. Ah, commencé kii ah, ba léegi alaaji ah. bu joueur yëpp yéegee attaquant yeeg milieu terrain baa ñëpp daw fattkaan yi. boobaa bal dootul dugg xëy na loolu lañ jàpp dugg gis nañ fi gis nañ fi gis nañ fi fu bari fu bal dugg. ah waaye bitu dernière minute am na de. <laughs> <laughs> en tout cas mi ngi noonu doy na waax euh, ay ca ñu bàyyi la rek nga tàggatoo bëggoon naa nag nga kiiwal ma ci diine ji tuuti mais mel na ni da ngay daw res nag alaaji mais garaawul. daa ñu joxante dig daje incha allah rabi beneen. beneen altine altine jàmm ci kàttanu borom bi. incha allah. jërëjëf yàlla mën na ko yàlla na ko amiin amiin amiin amiin yaa rabbi jërëjëf Aïcha mi ngi noonu nag ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Modou Diouf Abdou Top ak Lay Diallo sooy bu yaa ngi may woo di ma perturber mais bon garaawul amul problème je gère maa ngi ñëw léegi euh, di jaajëfal nag képp koo xam ne rek yaa ngi ñu doon suivre jamono ji way leen di abonné ci suñuy plateforme di leen euh, gërëm di leen sant te di leen jox dig daje beneen lundi incha allah yàlla na yàlla def jàmm wisat encore euh, yërmande ci xolu sénégalais yi defal ñu ko defal ko mboolem jullit ci barke alxuraan beneen lundi ak l' émission des émissions incha allahu rabbi